ci bopp xalaatu ko ah. Macky Sall kay li ma lay wax nii man mhm. mooy ku ko ubbil bunt mu dem nit ñi ñoo naan man xam nga jeudi bii jàll jàpp jeudi mhm. <laughs> dama ne Sall ah wii la bëgg toog après nga xalaat ne mais man maa ngi koy yii tànk ak tànk mhm. mais gis naa ne fi mu ne nii xam nga jeudi bi ñu fa jógee vendredi bu tàng dafa am jeudi amul woon moor ay moor am na mi ngi enregistré wu ci biir nguuram dee yi am mi ngi yokk dégg nga poli gendarmerie suba suba mën nañ laa defal jëye joo xamante ne maanaam yi bu lay topp si président bi lay tàmbalee. léegi loolu lépp nag Macky Sall bi mu ko gisee man xam naa ne ku ko ubbil bunt yi ñemeloo ko tuuti. opposition bi société civile ñi ngi maintenir la pression parce que déjà ginnaaw suba war nañ marche fii euh, ci euh, Ndakaaru euh, ci tali bi nga xam ne moo jógee Liberté 5 wutali ci côté école normale yooyu opposition bi aussi gis nañ leen ñu ne ñoom lépp loo xam ne sax nit ñi ñu ngi koy organiser fii muy société civile muy ñeneen dañ ci participer bokk si pression boobu jàpp nga que ni mën na reculer loo président de la République Macky par rapport ak li nga fi jot a gis vendredi takk jar yi delloo ñu ginnaaw ñu bari dañ doon jàpp que ni non finalement bu dara xewatee ñoom dañuy euh, peut-être dañuy arrière wala ay mordoom mën na fee bañ a amati. waaw foofu euh, day gën a metti parce que dafa am loo xam ne maanaam dafa réeroon gars yi. mooy gis nga problème mu Ousmane Sonko problème mu nangam loolu lépp dafa nekkoon benn parti. ak benn fee maanaam aji saar la moo ko def lii moo ko def laa loolu ay lay am na ci mais gis nga li am nii waa Bennoo waa parti Macky sàll waa PDS amul ku am fitu taxaw maanaam man koo layal Macky Sall dafa tooñ askan wi loolu mooy dëgg. te moom xam na ne dafa tooñ. loolu tax tooñ saa boo ko defee da nekk ci position faible léegi nag opposition bi moom man li ma leen li ma li ma li ma leen di xelal mooy buñ ko may dara. ah bon ah nañ ko sëkkatal rek sëkkatal sëkkatal may bañ koo may fu mu xalaate parce que Macky sàll saa bu affaire bi seddee day façonné waat. yéen a xool luñ ci bàyyi aussi parce que gis nañ li fi am sa euh, week njeexitalu semaine bii. xam nga xam nga Macky Sall li bon li garaaw ci moom ci mhm. mooy boo ko mayee jàmm day jékki-jékki rek nga jékki-jékki rek maanaam koo yenu woon lépp rek ne man non maa ngi dem ci Macky Sall quoi maanaam day créer crise au confiance bi ñu amante ci biir affaire bi <laughs> loolu lay rey <laughs> moom noonu noonu moom politique am loolu la boo xoolee Wade def na fi dix ans mhm. di politique bu dul 23 juin soo gis opposition bi mën a def mobilisation bu fort xam nga daana ñàngal naan eh, gën leen gën leen gën leen mm, kii Wade moo ko daan wax hmm. gën leen ngeen ngeen ngeen ngeen manifester opposition day manifester euh, xam nga gars sàcc élection yi hmm. pourtant bi mu génnee di li mu njëkk a def mooy Tanor mi sàcc la Moustapha Niass mi def na lii def na léegi yéen damaa sàcc élection yi da ngeen génn ngeen manifester opposition day manifester mais Macky Sall gis nga parce que ah, Wade da daan créer crise ci biir opposition bi mooy kenn du kenn boo xoolee Idriss Seck Macky Sall Abdoulaye Wade loolu la ko def ba léegi ko topp day fexe ba nit ñi duñu la wóolu day ñëw ne la may naa la xaalis wala def naa lii mas na ko def ñoom Ablaye euh, ñoom ñoom Mamadou Diop Decroix mi ak Landing Savané duñ dalalee seen militants mais loolu la Macky Sall di def léegi nag gis nga Macky Sall benn affaire laa koy wax man mhm. mooy voie jàmm bi mu nekk maanaam libéré détenu yi ni mu ci bokkee mhm. daf ci am lu ci bokk mooy accepter manifestation yi man ñaar wooyu laa koy xelal. Ah, gis nañ la xew Mali de. na accepté manifestation yi non non xam yi boo ko mm-hmm. boo ko terewul. Sénégal bu ko terewul muy gën di yokk. boo ko terewul ay vendredi yu jot ñëpp di génnandoo mais xam nga xam nga mobilisation bi. di yokk mais wal fajiri li fi xew ni barki démb. Mm. suñ ko terewul woon du fi am. dañuy def discours. Mm. après ñu dem mais continuer ñi enregistré ay mort di dem te lépp nekk benn baat boo xam ne yow yaa ko wax kooku yow yaa ngi woote apaisement ci jàmm ba noppi bëgg aaye en même temps ñi ngay apeese wu ñu taxaw wax seen xalaat bu pare en même temps yaa ngi rey tey boo xoolee Mimi Touré discours bi mu mënee da ngay xam ne rey yi mais mi ngi koy sokke te noonu lay sokkee ñeneen ñi ba nga xam ne ñoom itam mais nit ñi deele te yow bokkal na yow làng di xeex après ñu jékki-jékki dégg ñu ne yow yaa ngi dialogue ak ki ki ray seen doom mais yooyu dafay dafay dafay jafeel dialogue te man man xam naa ne dialogue bi dina jafe mais président bu matee fi mat sëgg bàyyi te fexe ba nga xam ne élection yi moom ak lu mën a xew na génnee ci boppam le trois avril mu des fi nekk président baaxul ci moom baaxul ci réew mi baaxul ci baaxul ci démocratie bi gën ci benn côté léegi nag moom na bàyyi gars yi di manifester wu <laughs> na génnee di tuni politique yi na dal bàyyi leen ñuy def seeni discours mu dégg su ko defee bu poobaa mais soo xeexee ñoom gars yi dañuy continuer di xeex ak yow te actuellement fii may wax ak yow opposition bi ñoo man ba fa am lu leen réeroon mooy amunte wuñu woon confiance seen biir benn yoon lañ ko jot a am ci benn diggante mooy après mois de mars mhm. effectivement Sonko yi bi ñuy ñëw di ko wàllu si ci lañ def retrouvailles ay Déthié Fall ay ñii daje lim jur mooy gis nga ko gañe ko local gañe ko législatif mhm. dégg nga ñu jékki-jékki benn instant dialogue bi ñëw tas caché caché rythme bi. Mhm. waa F24 euh, troisième mandat bi ñëw. kase rythme kase bi mooy bi Macky Sall ni defatuma troisième mandat rek. rythme rythme bi kasew mhm. léegi mais affaire bii Macky Sall def mais Khalifa ak yi mag Khalifa ak Sonko waa FN4 barki dem gis nga ko ñoom bugaat ñi bul bi mi ngi ñëwaat gis nga buñ dajee mhm. mais xajuñ ci makk Sall. pour yow gëm nañ ko. ñii ñëw ñëpp di wax ci report beeg yooyu pour yow gëm nañ ko. man pour man ñëpp ko gëm. Hmm. parce que même ñi bokku woon ak ñi nga xam ne xëy na ñi ngi doon roode wu bokk ak yooyu ñi bokkul ñëpp xam nañ ne Macky Sall li mu teg nii du dem. Hmm. léegi nag lu dem. kenn du la ci mën a jàppale. mag xëy waa waa PDS ñoo asaaloo seen bopp ñoom. ah nit ñi dañoo amagut seen jot ñoom ñu yaakaar na dañoo am ndam. billahi PDS <laughs> Karim ne woon looloo ko desee victoire boobu noonu mooy ñu reporter élection présidentielle yi. am na ko tegaat lépp si yoon. waaw léegi am na ko reporter ko. léegi na ñëw Karim Wade bu duggoon Sénégal nii nii nii nii mu bari mu néew dina am ñu ko tàccu li mooy avant avant ñuy reporter élection yi. mais na ñëw tey buy ñëw bay ba mu ànd ak mu sol mu sol kas casque yi kas ki bu sinon gars yi dinañ toj ñel bi xeer. <laughs> Sénégal gii ma Karim Wade kay rey na boppam politiquement nag laa la wax. Hmm. waaw parce parce que li mu def nii Sénégal mais moom dafa fàtte ne vingt cinq députés yi mu am ci opposition la ko jëlee dafa adressé wu ne opposition la dem ànd ak opposition radicale bi fi nekkoon mooy ñoom Karim ñoom ñoom Sonko ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom Déthié Fall fexe ba enregistré wu fa jële fa vingt cinq députés vingt cinq députés yooyu mu bëgg a ñëw jox ko pouvoir bi ba noppi di gëm ne moom opinion baa ngi ànd ak moom ba léegi. Ah xamuñu politique joxu leen ko dañ ko defal dañoo def commission d' après proposer. non ñii kay li ñu def seen wàllu gi ñu woote nekk wàllu Macky la tudd. nee nañ sama bopp la gën a. non wàllu xam nga wàllu lañ tudd seen bopp. Mm-hmm. mais wàllu Macky la. wàllu Macky PDS léegi wàllu Macky la seen seen entre coalition boobu entre intercoalition wàllu dool li Macky ñoom ñooy dolli mandat. <laughs> jërëjëf jërëjëf Cheikh Bara Ndiaye waxtu yi ñu mayoon jeex la tàkk ñu bàyyi la ko tàggatoo. waaw li may tàggatoo daal mooy Sénégal moom. ak loo ci mën a dégg dëkk la boo xam ne euh, dañoo miin démocratie xam ko xam nga loo xamut gis nga am alal ba mu yàgg nga ñàkk ko mm, dangay mel na dof bokk mm-hmm. ki nga xam ne musta xam alal kooku doylu ko ci fekk du ci fekk kenn Sénégal dañoo yàgg ci démocratie miin démocratie dëkk ak su ñu demee ba mu yàgg ñu jékki-jékki rek maanaam aw ci yoonu démocratie boobu ñu xamoon mu teqali koog ñun loolu dafay jafe te gis nga Macky Sall dafa am lu mu xam. Sénégalais yi dañoo doyal ci moom doyal goo xam ne maanaam benn fan man dafa am lu ma mas dal maag Pape Alé Niang yi mhm. <laughs> dama ko woo téléphone. naan ko ñuy waxtaan ma naan ko Macky Sall de. Euh, defe naa booba quatre-vingt-deux jours laa ko wax. waaw nekkee man damay wàññi Pape Alé di wàññi. mam ñaari fan laa yokkal Macky rek mag Pape Alé na ma mo waaye eh, yaa ngi ciy yokk ñaari fan <laughs> quatre-vingt <laughs> quatre-vingts ci des ma a ko ah yow kon yaa ngi wàññi mu ne eh, maa ngi wàññi de bis bu set damay wàññi ma ne ko man pourtant man it bis bu set damay wàññi Macky senegal yi dañoo waññi li ko fi deseeg ñun pour mbir mi jeex mhm. di ko wàññi di ko wàññi ba mu des wenn trois jour pour ñu mu may ñu daal mhm. nga xam ne Macky Sall dootuñu jiite makki sàll dal di euh, jékki-jékki rek ba cee yokkaat maanaam neuf mois neuf mois am yooyu mu ci bëgg a yokk nag na xam ne lu diis gan la ci sénégalais yi parce que maslaa gi yépp mooy jàppoon ne la vingt cinq ci la Macky Sall di jeexal donc dolli googu moom na ko teg ci suuf parce que mënta nekk deuxièmement mooy askan wi maa ngi leen di woo guddi yi nu toll taxawu réew mi moo jot gis nga coupe d'Afrique biñ ko jëlee amul kenn ku toog naan noo man kenn wowu ma man kenn liwu ma ñëpp a jóg parce que dañoo gëm ne ay sénégalais lañ te tey réew mi moo am ndam mm. gis nga ndam loolu Sénégal amoon maanaam defet bu ko gën a rëy mooy bëgg dal réew mi mooy président bu fi mën a toog def say dëbbal dëbbal ba tëdd ci pale bi di jël ay décret di lepp turu réew mi di def lu ko neex te moom moo def ay pexeem ba falu fi président li ñu ko booleeg moom mooy ñun ñoo ko daan fal mu nekkal ñu ci pale bi tey nag bu ma nee fal boppam rek kon ñun bayee boobu ñu xam ne daanaka dem armée la ñu tollal mooy nekkatuñu le cinq suñu date la boo xam ne loi Sénégal moo ñu ko jox comme ni mu joxee Macky Sall nag ay décret ni mu ko joxee mu nekk ci palais bi di fa fanaan. noonu la ñu moomee la vingt cinq. gis naa nag duma koy def lu bari sax kilifa diine. wax ba noppi ma ciy teg leneen lu ma lu dul noona waaye gis naa ko naan jihaat jeex na dégg nga. Mhm. ku jihaatut nag ñun jihaatuñu woon. ñu ñu ñu bañ a wootee jihaat aussi. waaw non man wootee wu de. dama ne. Mhm. ku jihaatut jihaat. Mhm. mooy xareb lislaam ak. Euh, ay yéefar. Mhm. dégg nga moom moo jël baat bi looloo tax ma koy ma koy corriger rek dafa jël baat bi moom wooteel ñu lu ñu wootewut mhm. xam nga boo nee jihaad jeex na jihaad mooy yéefar yi. di xañ nit ñi diine. Mhm. ay jullit taxaw di xeex ak yéefar yi dégg nga bu dee loolu rek mooy jihaad loolu jeex na dégg nga waaye nag taxawu sa réew dégg nga aar sa réew loolu musu fee jóg te du fi jóg te ak encore une fois fii kenn wóotewu fi jihaad duñ ay terroriste duñ ay jihadiste duñ ay intégriste duñ yooyu dégg li am mooy Sénégal dafa am lu fi am mooy clause de éternité loolu bu waroon naa ko wax fàtte naa ko clause d' éternité boobu Macky Sall waxoon ci loi bi xam nga Allemagne mhm. bi ñu defee guerre mondiale ba noppi nazi yi mooy ñoom. Euh, Hitler Hitler. Hitler dañu leen tooñ tooñ goo xam ne dañ ne lii lii duñ ci dellusiwaat ci àdduna ñu ne cause bii cause bii cause bii cause bii. nañ ci d'accord ne dootu amati ci histoire àdduna. ñu daal di koy def loi jël loi boobu wutalaat ko beneen loi muy clause d'éternité defar ko ne lii mooy caabeem tëj nañ ko amatul ci àdduna ku ci mën a dellusiwaat di ci waxaat. makki sàll bi Ablaye Wade sonalee nit ñi ak troisième mandat. Mhm. dafa dem Allemagne leen seen clause d'éternité bi ngeen defoon aal leen ma ko ñu aal ko ko mu ñëw def ko ci loi Sénégal bi ni maanaam mbirum mandat diire mandat yokkub mandat wàññum mandat. ma nekkatul lu ñuy wàññikuwaat di ci waxaat ci les ci suñu àdduna. Mhm. loolu nag la Macky Sall xëy xëy xëy ne maanaam malgré que loi ko waxta moo ko ci def dafa xëy bëgg koo dindi bi mu ko bëggee dindi nag askan wi nga xam ne ñun dañoo jàpp ne dañoo am àq. ak yelleef ci biir réew mii ñoo taxaw ne ko lii du fi amee. ñàkk am googu nag ñun ci anam sëriñ bi laay waxal ba tey de anam gu pacifique lañ ko bëgg a defee mooy sol suñuy baylaat sol suñuy grand mbubb sol suñuy laay-laay dem ba ca place yi taxaw non à troisième mandat non yokk mandat Macky Sall bëgguñu nga nekk nga def lii bu ñu paree dem ca kër ga. coow yi ciy amaku su néew nag bu dee sëriñ bi daa yaakaar na ñun dañuy jihaat mooy ay gendarme ak i police yuy taxaw ne du ngeen fi dajaloo ci suufu Sénégal soo xam ne fi lañ dëkk duñ fi dajaloo. ci loo xamante ne gis nga Baay Laay ak sëñ Touba ak El Hadj Malick kuñ nekk sa maam maanaam kenn mënatulaa def jàmm. Mhm. ku la bëgg a def jàmm da ngay bañ. loolu rek mooy suñ problème bu ndaw ak président Macky Sall. waaye jihaat jeex na fii jihaat amu fi. kenn jihaatu fi kenn wootewu fi toole xare. kenn yoruti ngànnaay kenn jënduti jaasi kenn jënduti armée te encore une fois sëriñ bi laay ñun woote wun ay jihaat ba ganaan jihaat jeex na bàyyi laay jihaat na ko jërëjëf dégg nga kon loolu dama koy indiwaat rek parce que dafa yomb rek ñu ne non ñii fitna xëy ci ay mots la rek. waaw mais ñoom ñëpp jàmm la wut. Euh, euh, Cheikh Bara may indaale loolu da cee bokk. ñoom jàmm la euh, a dem mm. woote rek nit ñi xam ne lu ma sama bopp kilifa diine wax ba pare ma ciy dellusiwaat mais mm. damaa xam ne rek moom na ma ko yàlla jéggal ba mm. na ma ko baal waaye dañ koy façonné jàmm ji la woon dañ koy façonné non xam nga nga bo woote bàyyi laay moom boo gisee li ñuy sol nga xam ne lii jàmm la ñuy woote waaye ay nit tamit doo leen fekk ñuy def li ñuy def ba noppi nga bëgg leen a tudde turun doonut nun duñ jihaatun xëy na ci kàddu yi la xëy na ci kàddu yi la jihaatuñu tey jihaatuñu suba mm-hmm. jihaatuñu gannaaw suba jërëjëf woote wuñ islamiste woote wuñu salafiste woote wuñ ci diine woote wuñ ci tariixa woote wuñ ci len jërëjëf Sénégal daal lañ bëgg a yàq mm-hmm. askan wi jóg taxaw ne du fi amee jërëjëf loolu nag jàpp naa ne sëriñ bi bu ko leeree ci boppam. Mhm. dañoo war a encourager ci loolu parce que am nee nga dañuy dem des fois di yàq yéen ngeen dem wax ak ñoom. expliqué leen ci réew mi voilà bu demee donc ñoom itam ci jàmm ji lañ nekk ci ay jihaat jihaat euh, mardi bii buñ ñu bàyyee mhm. buñ ñu bàyyee mhm.